comme ni ngeen ko gisee lépp c'est c'est bio feuille de moringa yi laay tàmbalee feuille de corossol poudre de moringa feuille de bissap sexaw kon mooy kinkeliba huile de baobab huile de moringa dañuy defar tamit euh, confiture de bissap confiture de buy ñoo ngi ci gélule de moringa ñoo ngi ci poudre de baobab ñoo ngi ci café deux cent 250 grammes cent grammes ñoo ngi tamit ci euh, poudre de baobab bi 100 grammes bon bien fait boo xoolee tey Afrique lañ dëkk te lu ci bëri tey bu ñu feebaree euh, fi ñuy dem pharmacie te pharmacie léegi ñoo ngi commencé jënd suñu poudre de moringa yi buy bi tamit set na sell na baax na tamit boo ko bëggee utiliser tamit tey en jus mun nga ko utiliser huile de moringa baa ngi fi tamit bëri njëriñ lool. nday Fatou Tall donc euh, là maa ngi gérer benn entreprise buy defar ay tàngal mais tàngal yu différent ay tàngal euh, yoo xamante ni ñu ngi koy woowee pâte de fruits. ñu ngi koy defaree suñuy produits yi nga xamante ni suñu réew la am donc tàngal yi c'est à base de màdd bisaab ak ditax donc te ku ne xam na ni que généralement ay bisaab ak ditax yi màdd di nga ko utiliser généralement pour tàngal léegi pour innover nag pour génnee lu bees moo tax ñu créer ay tàngal yoo xamante ni c'est pas trop sucré déjà donc euh, ñi nga xamante dañuy daw suukar bi dinañ ko mën a lekk suñu doom yi nga xamante ni sànni mu ngi leen di bëgg a rey tamit dinañ ci mën a barkeelu xam nga entrepreneuriat dafa nekk loo xamante ne lu am solo la tey jigéen bi nga xamante ne mi ngi këram peut-être sax mi ngi entreprendre te du ci rendre compte donc fibre entrepreneuriat jigéen daf ko am naturellement donc man damay ñaax suñu mbokku jigéen ñi vraiment pour ñu lancer wu ci entrepreneuriat bi soxlawul de gros moyens mun nga commencer par de petits moyens xam nga. di jaay ci biir koñ bi sa faire connaître petit à petit petit à petit ba nga dem ba yegg fenn fii tey jii mun nga boole sa liggéey kër en même temps ngay entreprendre pour jigéen yi nga xamante ils ont pas la possibilité de travailler ñi nga xamante ñu ngi liggéey tamit mën nañ ko def tamit euh, benn mun naa ne benn benn weccet boo xamante ne dina leen permettre tamit ñu mën a dolleeku ci seen salaire donc euh, mu nekk loo xamante dama lay encourager femmes yi pour ñu lancer wu ci